daleen jàmm ci seen euh, plateau seen ka suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal comme ni ñu taamoo rek di ko defee tous les jours ah, tey nag ñu nekk ci début de semaine lundi ñu daal di rek àndaat ak yéen ci beneen émission ci beneen thème ci beneen cas euh, comme ni nga ko xamee ah, di fi xew démb euh, mu ci toile bi donc tey loolu rek la ñuy daal di waxtaanee ci seen ci seen cas ñi am ci nag gan daanaan la boo xamante ne ni tey dinañ ci indil ay leeral yu am solo lool. loolu rek euh, ma nuyu ko tout d'abord balaa ñuy jàll maa ngi lay nuyu. Mariama maa ngi lay fay. Mhm. Euh, di am mbégte teew fii euh, seen plateau bi waxtaan ak seen internet yi ci kaa bi nga xam te ne moo xew muy cas bu bu yéem àdduna boo xam ni képp ku yeewoo ci senegal laal na la muy loo xam ni lu tiis la ab médecin bu bu bu faat ay doomam. daal di xaru te ku ne xam na ne médecin liggéeyam mooy fexe ba nit ki am wér nit ki mën a dund ci kaw suuf mais bu ñu demee ba médecin ci boppam. Mhm. di faat ay propre doomam ba pare faat boppam loolu kaa mënu ko rëy mënu ko gën a rëy. Mhm. ba tax na tey jii jàpp naa ne ci seen euh, plateau Equivox TV bi ne. jàpp naa ne euh, lépp loo xam ne ci wàllu njàngat la boobu nekk ci amal. ayca am na solo lool mooy ni ngeen ko déggee kaala boo xamante ne doy na waar depuis démb ba léegi ñu ngi koy gis ci toile bi di jéemoo maa ngi lay nuyu ñu fas yéene rek ñëw ci kaa bi tey. Euh, maa ngi lay fay soxna Mariam euh, sama xol dafa fees waaye maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan partout dans le monde à travers Equivox TV. Euh, di mastawu nag sénégalais yëpp parce que même bu dul sénégalais tey képp koo xam ne nit nga rek lii daf la metti parce que mën naa ne rëq-rëq yàgg na ci sëy ñu gérer ko ah une autre manière mais pas pour boole ci xale yi parce que non seulement xale yi lor nañ leen waaye nag dañoo loraale bépp moroomam boo xam ne tey ñoom ñoo doon ànd walla ñoo doon bokk classe parce que ñooñu dinañ màggaale loo xam ne Euh, mën na leen indil ay dépression très sincèrement maa ngi maa ngi maa ngi koy massawu sénégalais yi te di naqarlu mbir mi bu baax a baax a baax. ayca am na solo lool li nga wax di jéemoo xam naa ni rek touché na ñu bëri fii ci nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais ñu fàttali rek euh, benn docteur la muy wuyoo ci turu ah Falla Paye bi nga xamante ne médecin dentiste la ginnaaw bi mu faatee bakkan euh, ñetti euh, doomam tout tànk yi nga xamante ne moom la ko suñu borom jox dafa rek daal di ci teg boppam xaru rek ñu daal di koy police bi démb nag la ko daal di découvrir ñu ñoo ko déggandoo ñoo ci yemandoo damay bàyyi suñu gan gi nga xamante ne ne Ansoumane Dione moom mi nga xamante ne rek dafay taxaw ñëpp ñoo xamante ne wàllu ay malades mentaux lañ mën na leen waxee noonu entre guillemets dañuy jànkonteel loolu nga xamante ne moom mooy feebaru xel mu andi ñu ci ay leeral euh, donc kii nii euh, Ousmane nan nga jàngatee li nga xamante ni moom moo jot a xew nga euh, nit dafa am ñaar yu nekk moom muy xol ak xel benn du dem bàyyi moromam nit ki bu xolam taxawee ci lañ naan kiy génn àdduna. mais bu xelam jaxasowee ci lañ naan kii dof na ci gàttal te moment boobu moo ki faatu rawante wuñ dara kii def na ci kaw suuf di dox kële ñu dugal ko ci biir suuf euh, xel nag dafay am ay jafe-jafe yu bokkut ak feebar mais fàttali ne dañuy wax euh, maladie mentale ak santé mentale mhm. feebaru xel ak lépp lu aajowoo ci xel mu sell xel mu sell xel mu rafet xel nag dafa am ay mbir yu bari yoo xam ni daf koy jaxase te bu ko jaxasee nit ki mën na yegg foo xamante ni dootul contrôler ay jëfam dafay mel ni keneen moo ne ci moom di ko dicté muy def te kooku noonu moom mënu ci dara te tànk ndimbaluñ ko pour mu génn ci loxo yi kooku du yomb. Mhm. wax nga wax bu am solo parce mbir mi ni nga ko jàngatee dafa xóot. Mhm. xale yooyu ñu bokkaloon classe. Mhm. ñooñu tamit bokk na si ñu war a assister psychologiquement. wax bu am solo nga foofu noonu. nit ki buy dund jafe-jafe. dafay jàkkaarloo jafe-jafe bi. jafe-jafe di ko xool moom mu koy xool. te bukkut a gis jafe-jafe bi. dafay mel ni benn point bu noir buy bu ne si kanamam te du xam nu ngi koy dindee te moom ci boppam amul possibilité wu dindi ko bu yàggee moom lan lan lay def mooy moom mu effacé wu mooy moom mu dem bàyyi fa problème bi loolu moo waral nit di xaw pour pour pour war la nit bu buy xaru lu tax muy xaru léegi su amoon ku ko déglu ba lu ñuul loolu ne ci kanamam jafe-jafe boobu nekk si kanamam problème ba mu ne si kanamam ba mu am ci saafara su boobaa lu lu ñuul li dafay daal di weex. Mhm. maanaam problème bi dana leer ci bopp bi. Mhm. bu leeree rek dootul am xalaatu dem parce que lu ñuul la nekkatu fa. Mhm. lu ñuul li mooy problème bi mooy jafe-jafe. sëy ak place liggéeyukaay ak biir marché. cest à nit ci biir ay nit lay évoluer. te ay nit bu ñu nekkee dañuy fexe di dégluwante. déglu dafa am solo mais dañ nekk ci réew moo xam ni Sénégal kenn du déglu sa morom da ngay wax guy ñu ne la daqaar pëcc ko daal di am werante am alors que bu ñu déglu wante ñu ne guy ñu ne ah buy la wax de mun ne waaw nañu jënd buy parce que dañuy préparer ngalax nga ne kon man xaaral ma uti kenn xaaral ma indi pomme kenn xaaral ma indi bëgg xaaral ma indi banaana kenn xaaral ma indi ay morceau de glace ba ñun glace gi pour lan ñu ne non pour mu xaw a sedd ñun ok kon glace gi ñëw gis nga foofu après day daal di neex. Mhm. mais boo bàyyee guy gi ci Dakar yaa ngi déplacé wax ci Sénégal nag noonu lay def. est-ce que kon jàppoo ne euh, Sénégal dañu dem ba joxante gëdd gi ak joxante ma ak fonk doomu aadama gi mooy nax saay. loolu moo nekk parce que kenn ku nekk foog nga ne. Mhm. yow rek. la war a waxtaanee. maanaam sa intérêt rek la war a sóor toujours da ngay dàq intérêt yëpp ngir sa bopp. maanaam hypocrisie da li ngay wax ni dafay daal di ñëw. te hypocrisie mensonge. maanaam wax naka su noonu. siis iñaan ak soxor yëpp ci bopp lay bàyyi ko. am na solo loolu. bu fekkente ne góor ak jigéen sëy nañu ba yàlla def tàggoo am. war nañ mën a fexe ba nu mu gën a rafetee. Mhm. bañ xëccoo parce que xëccoo fu mu am rek yàqu-yàqu day am. Mhm. ndaxte doom dafa foor su fekkente ne kii faat ay doomam tey ji mhm. dem na ba gis ne moom nee na ci lu mu wax ndaw si daf ko doon nax maanaam bëgg ko woon kon tey bëggul ci biir euh, ay doomam ay sët di ci génn yoo xam te ni euh, mbëggeel amu foon. wax boobu dafay won ne. monsieur Assoumane. oui foofu doguma la. Mhm. mais gis nga ñun ñëpp liir nañ la mu wax. mais man boog. Mhm. amul lu ma ci convaincre ci xale yi. dëgg la ci xale yi laay wax. dëgg la parce que tey moom ak soxnaam nekku fi nag. mais moom ak soxnaam. Mhm. mënoon nañoo régler seen problème di otre manière xale yi sàkkuñu ngir teew. dëgg la xale yi kay yàlla moo leen sàkk ñu teew. mais nag. du yoon tey boo amee ak sa soxna problème nga koy faje say doom parce que mun na nañu nañ ko faje d'une autre manière je conseille pas les sénégalais mhm. à ce que ñuy continuer ci noonu parce que fii gis nañ fi ku am problème ak jëkkëram mhm. ngeen xeex wala ngeen xuloo ngeen dem tribunal defante yeneen loolu yéen ñaar la mais xale yi duñ ci dara parce que tey bu demee ba ñu war a yor sécurité doom mhm. di teg xale yi métit ah c'est grave comme que xale bi mënatul am sécurité ci mbedd ay waajuram ak bonheur boobu ni mu neexee donc bu ñu demee ba waajur di teg loolu donc c'est grave en tout cas très sincèrement muy man muy keneen képp ku dégg mbir mi. xol bu naqari nga am. dëgg la donc man foofu noonu man dama naan dama naan bon la. xam nga euh, li nga wax noonu ñu bëri noonu la ñu gisee. Mhm. te muy gisin nag bu jaar yoon. Mhm. ñun dañ koy comprendre. gis nga asamaan si booy xool. da nga naan dafa bleu. bu la laajee naan naan dafa bleu. Mhm. xëy na nu mel nga dafa ñuul. Mhm. parce que moom nga gis. Mhm. mais est ce que boo yeggee ba asamaan est ce que ba demee ba tiim xiin bi est ce que xiin bi dafa ñuul wala asamaan dafa bleu. amaan sa bët bi mooy la woon ne dafa bleu. waaye boo demee ba tiim asamaan da nga xam ne asamaan xëy na sax bleuwul. cest dire que nit ñi lañ liñ am rek moom la mën a waxtaan. mais ki nga xam ne ba muy def. moom xamut li muy def lan la. Mhm. maanaam tayatu ko maanaam maanaam euh, douleur bi mu supporté parce que nit nit rek la. Mhm. Euh, am na problème ak ak jabar yi. Mhm. xol am na fu muy toll ci naqar. gis nga ni xol bi baxee noonu la xel mi aussi bi jaxasoo. waa mais mais foofu. foofu foofu foofu dama fay dut baaram. parce que tey ak nu problème toll. ak nu mer toll. doom yi nga xam ne ñoom duñu ci lenn. Mhm. doom yi nga xam ne ñu ngir teew. dëgg la doom yi nga xam ne seen pro gis nga xale yi. Mhm. yàlla xam ne mun na am sax seen problème ñoom comprendre ñu. xamuñu ndax seen yaay ak seen papa am na problème parce que su ma juumul ki ci mag 13 ans lay am xaw ma 12 mhm. ans. donc ñooñu ils n'ont rien compris donc ñooñu. waruñu nekk euh, ñi nga xam ne ñooy nekk añoo añoo añoo di sacrifice est-ce que xam nga li uh-huh. tax li tax xale yi mu booleñ ci lim am na ko moom moom li bëggoon mooy am nag mooy tey jii yow nga réagir nii ñun ñu toog fii xam nga xëy na moom bu xar woon moom kese. Mhm. dañ naan chaque jour aji xaru. Mhm. Mhm. c'est-à-dire moom société bi ci bopp dafa mel ni daf il se venge. par rapport société xam nga ki dem ba policier bi dem ba digg Sandaga. digg Sandaga nga jël ciseau nga nga nga xotti sa biir. xam nga mën nga tëdd sa kër mën na tëdd këram xocc biiram. mën na tëdd këram pandru waaye di déedéet day dem ba digg sànn ga jigéen ñi mag ñi ndaw ji gis ay butit di génn. xam nga loolu. touché société horreur la boo xam ni. Mhm. nit ñi la ko jublu moom aussi tey tey tey jii. Mhm. li xew nii gis nga xale yi bu ñu ci boolee rek. Mhm. ce n'est plus l'enfant mais c'est toute la société c'est toute l'humanité léegi nag lan la ci war a jàngat. la leçon qu'on doit en tirer. moo ci solo. mooy tey jii pour la mémoire de ses enfants. Mhm. xale yi dem tey jii dafa war a tax askan bi yëpp taxaw ne léegi nan nan la ñuy def léegi ba ku am amati problème. Mhm. ñu mën laa taxaw mhm. pour que fu waay nekk jaaxle xam nga tey jii état mooy yor lépp. fii Equivox TV la. boo demee yàlla ministère la santé. yàlla yàlla palais de jigéen ñi bu ñu soxla togg añ dañuy dem marché dem dugg ji. Mhm. hôpitaux yi bu sa biir méttee da ngay dem hôpital. Mhm. accident de circulation dañ koy yóbbu urgence. Mhm. mais bu fekk ne nit ki mi ngi dund benn jafe-jafe fan la koy waxee kenn ma ko wax déglu c'est un problème. te loolu dañ ko war a régler gis nga boo demee dans les pays européens. institution la ñoo xam ne ni uniquement luy seen liggéey yëpp mooy di déglu nit ñi di leen orienter. man il y a deux ans de cela. dama ubbi woon à Rufisque ci suñu association bi la maison de l'espoir et du sourire maanaam benn kër la boo xam te ni ay nit daanañ fa ñëw ay góor ay jigéen. Mm-hmm. indi fay jafe-jafe yoo xam te ni am na ci benn jigéen boo xam ni dafa dem Jokkoo FM ci Tëngéej benn rajo communautaire di fa jooy ñu ne ko dama seeti Ansoumana mm-hmm. boo demee da fecc waxtaan yi ba noppi. mu ne man li may dund nii dee dee rek ma ko mën a séddal mhm. ndaw si bi ma wooyee di jooy ma recevoir ko suma kër dafa jooy ba sonn ma pour man man naa pour moom bu jooyee damay jooy maa ngi naan boo rek nga wax ma après mhm. jooyal loo mën nag mhm. mais gis nga ndaw si bi biñ commencé di waxtaan bi ma ko dégloo moom ci boobu moo ne ma lii moo ko naqari kon solution baa ngi nii gis nga bi bi ñuy génn la ma ne pourtant day waa Jokko FM ni nee nañ ma boo génnee kër Ansoumana Dione bu ñu la tëgalee sabar nga fecc wax dëgg yàlla ni ma kontaanee tey jii. xol euh, ci digg mbedd ma. Mhm. la ndaw si dóor ñaari pas de danse ndax kontaan. kon bu ma la déggee maanaam ñëw ñu noonu nga xamante ne ñuy jànkonteel jafe-jafe yooyu problème de communication la am ak ku leen déglu. tey jii nii euh, ma ñëw tey jii nii euh, ñi nga xamante ne ni ñoom ñu ngi ci société bi di dund comme ki nga xamante ne ni moom moo def de boobu démb ñu ngi koy dund nan lañ leen mën a identifier ci biir société bi parce que mënuñ ko woon xam en tant que médecin la xam nga tey ñi ay collègue am dina leen surprendre parce que xaaruñ ko woon ci moom ñu ngi xëy di ko gis en en bon état mu ngi recevoir ay nit di leen faj tey jii ñooñu nan lañ mën a def ba identifier ki nga xamante ni moom moo am problème bi si la personne en en personne elle-même n'a pas décidé euh, d'aller communiquer avec euh, ñi nga xamante ne ñoom la ko war a defantal. gis nga kër goo dem. Mhm. société pour seen rentabilité dañu war a am benn conseil psychologue benn psychologue conseiller mhm. boo xam ne nit ñi bu ku xëy si rek moom bu la xoolee dina xam ne kii tey jii mhm. war nañu waxtaan ak moom day gis un enseignant boo xam ne day tardé toujours ay morom enseignant duñ mën a xam lal la mais ki nga xam ne moo moom moo chargé wu ci loolu mhm. moo koy woo ba mu ñëw ñu ko waayu sëñ bi fan yi la moo tax ngay tardé rek mu ne ko waaw soxna si moo voyagé dépense bi du mat dama doon taqale maanaam day ëllëg këram ba pare mhm. doog a xëy si kooku entreprise bi war na ko mën accompagner ba loolu nga xam ne mooy problème am mhm. mu mën ci dañ mën na xool xam ne kat kii moo jabaram dañ am problème parce que nit bu soppeeku rek da koy xam mhm. Pape Ousmane am na ni muy comportoo ci seen këram tous les jours am na bés ni muy ñëwee di nga xam ne kii kat am na lu ko manqué boo ko laajee bu boo waxtaanee moom rek di ngay gis ne xëj na def xëj def naanul café mhm. nga dem nga dem jënd café ñoo jox ko bu naa ne che li ma méttee ñëpp gis naa ko c'est-à-dire une société mhm. les gens doivent s'écouter mhm. on doit orienter ceux qui des difficultés parce que dëkk nit ak difficulté ñoo ànd mais malheureusement fii am na nooy am na nooy doxale danaan diw dafa dikkalee temps yi dafay def temps yi dafa fuuy temps yi dafa am oto temps yi dafa def nangam fekk xamuñ ne oto ba ngay dawal sax amaana sax moo la indil problème yi ngay dund. Mhm. parce que carburant bi nga ci wax def. Mhm. mi ngi la jaaxal mu ngi la stressé. Mhm. yooyu yëpp ay mbir yoo xam te ni nit ñi gis nga benn montre. sa maam may la ko sa maamate maam may la ko nga def ko souvenir mu jékki-jékki mu réer ngay wër xamoo lan la te rus ngaa wax nit nit ñi fekk amaana. am na ko for sax. xamu ko mais tant que laaj a waa sëñ bi yow lay seet nga ne man sama montre lay seet mbaadu bii mun ah xool kooku li ko métier ñëpp dañ na gis nga montre boobu noonu bu ko xeeb de mën na jural musiba dans sa tête. mais monsieur Ansoumane. Mhm. man damay revenir un ci ci néegu sëy bi ko mhm. dëgg la parce que tey man li may wax. Mhm. mooy que ku ci nekk ak problème fu mu la toll ak li nga mën a gérer tey peut-être yow ni nga mën a mën a li nga mën a muñ. li nga mën a def sa néegu sëy nga muñ ko. am na koo xam ne attanu ko. dëgg la keneen ki tamit li mu attan yow peut-être mënoo koo attan. mais man li may wax dara justifié wul acte bu mel ni dëgg la amul lu ñu la mën a def ci néegu sëy amul loo mën a dund ci man fi may doon d'accord mhm. maa ngi jaalee bu baax Ndeye Awa Diagne mi nga xam ne moom la lii dal ci kawam metti na ba fu metti yem waaye nag euh, moom il faut ñu toppatoo ko bu baax bu wér sax insister waat ci ñu toppatoo aussi xale yi nga xam ne mook ñoo ma bokk classe ak ñi muy àndal parce que mhm. aussi c'est euh, c'est c'est très important mhm. xale selon li muy gis moom lay màggaale c'est te mun nañ màggaale rancune boobu ma ñëwaat un peu parce que gis nga tey doomu aadama li may wax amul lu justifier bakkan amul loo xam ne justifié na faat bakkan donc boo demee ba joteeg sa soxna man je vois que ne ànd dagan na tàggoo dagan na ci mm-hmm. jàmm mm-hmm. doo sonal say mbokk doo sonal kenn donc moom tey nekku fi mais pour ñeneen ñi nga xam ne tey ñu ngi dund mm-hmm. tey jànkoonteeg problème yu mel nii ngir yàlla na ñu seppi njaboot gi ci problème mu sëy yi njaboot gi duñ ci dara te demu ci de des fois da ngay gis koo xam ne dafay mere euh, euh, jabaram wala jëkkëram mais doom yi jour boobu duñu neexle lu ñu def mu dóor leen mais c'est grave. Mhm. doom yi sàkkoo ñu ngir ñëw. doom yi yàlla moo leen wàcce duñ ci dara. Mhm. te d'abord dañu naan euh, xale c'est le cadeau euh, du mariage. Mhm. ok léegi bu ñu mujjee dem ba xale boobu ñu koy ñu koy soppali lañoo di sacrifice c'est grave nañu nañu nañu xam ne xale yi duñu dara ay muuminu yàlla lañ. di nga gis sa papa ak ay di xuloo sa xale bi moom mu ngi foofu comprendre donc kooku boo ko bëggee sippi mbir mi ah c'est grave mhm. il faut que ñu gën a veyewaat ci loolu te li nga wax am na solo mais xam nga problème bi démb la am booy xool su opinion yi ñu commencé bëri li ci mel ni société bi comme sénégalais li mu taamu di def rek ñun ñëpp ci lañ bokk ah. dara bu amee au lieu ñu xool au li nga xamante ne moom moo poussé wala moo tax nit ki def ko déjà ñi commencé di joxoñ baaraam ki nga xamante ne moom mooy soxna si waaw ah, parce xam nga lu tax mhm. dama ne la faat bakkan amul lu ko mën a justifier te xale yi. Mhm. Euh, tey bu nekkoon da nga joteeg doomu aadama. Mhm. mu nekk ku majeur nga majeur ngeen jote même boo ko faatee amul lu ko justifier waxantuma laa nag muumiinu yàlla yi dama ne la ñi ay xale lañ. seen papa ak seen yaay divorcé nañ ñu ngi xuloo ñu ngi histoire ñoom mun nañoo bañ a comprendre ce qui s'est passé mun nañ leen gis sax ñoom ñuy xoolal xuloo ko yooyu ñoom du ñu xam sax nii lu ñuy def. comprendre nga ñooñu waruñoo nekk lañu di sacrifice foofu laa wax euh, li li nga wax di jéemoo. Mhm. dama lay fàttali benn mbir. Mhm. muy euh, Seydina Omar. Mhm. ku ne xam ko ci diine nekk ci kenn ci saxaaba yi yonent bi xam ne. Euh, tey jàpp nañ ne mën nga mën jàpp ne bokk na si njàmbaaru lislaam yi. Seydina Omar am dafa am ñaari moment yoo xam ne benn bi da koy reetaanloo mais benn da koy tisloo. Mhm. bi koy reetaanloo mooy dafa ñoom seen jamono bon benn mburu ma nekkoon yàllam moom Seydina Omar mhm. léeg-léeg bu bu xalaatee mburu mi day ree mhm. ñu ne ko lan la mu ne man la ma jàppoon sama yàlla léeg-léeg su ma xiifee ci lay dompat lekk xam ne kon kooku sama yàlla mais am na ci boo xam nii bu ko xalaatee day jooy dem ko naqari mooy doomam bu ndaw boo xam ne daf ba ci àll ba temps yooyu ku am doom jigéen da nga koy suul mu jël doomam bu jigéen mm. yóbbu ko ba àll ba di gas pax doom ñu ne ko papa looy def nii muy gas pax suuf bi di dal ci yaramu Seydina Omar doom di ko ko faxasal doom bi di ko faxasal suuf bi mu jékki-jékki jël doom ji dóor faat dugal suul bu xalaatee loolu mm-hmm. day am ko naqari maman bi nga koy def mm-hmm. maman boobu loolu moo xewoon foofa mm-hmm. yonent bi ñoo dindi loolu gis nga kii def lii tey jii mm-hmm. Mm-hmm. li nga yëg nii di jee moo moom la bépp doom aadama bu normal di yëg c'est très normal mais les faits la réalité leneen la parce que gis nga ni nga bëggee ni nga rëccoo nii moment bii médecin bi di fat ay doomam moo la gën a rëccu moom ci boppam amutoon lu ko naqari dëgg amutoon lu ko neex ci ba mu koy def bu sañoon du am mais la ko koy defloo du woon moom. dépassé na ko lenn rek man lay regretté. man lenn lay regretté mooy le pourquoi Sénégal toll fii tey jii si ñàkk mën a déglu wante boo seetloo ba ba jamono jii ñuy wax ni tey jii. instant bi ñu nekk nii ci wàllu élection yi jëm nii. dégluwante amu fi ku ci nekk dangay ngay jéem a wane doole. ana suñu xel nañ wax ci si mbedd mi. ñun ñu ngi bëgg a jëlee defe ci mbedd mi ñii woo nit ñi pour ñu wàcc si mbedd mi ana xel ana xam-xam lépp doole bàyyi may sax bàyyi nañ doole léegi bàyyi may sax xel la ñuy demee lu tax ñun Sénégal mënuñoo dem ak suñ xel ñu dimbale wante ñu yërëmante kilifa yi nga xam ne ñoom lañ jël suñ lépp dégg leen war a yor suñu kaaraange ñu war a yor sax sunu sunu mbégte sunu bien-être sunu cadre de vie dëkk ni ñu koy tabaxee. société bi ñu war a bindoo xam nga tey jii ku nekk ak sa kër. bu njëkk ba rek danaa nekk ci famille bu rëy. a ngi fi na nga fi sama mag papa ngi fi am na koo xam ne euh, mooy nekk suñu confidence. moo lay xelal moo lay digal mais fii amuloo kenn ku la xelal tey jii war nañ mun am benn numéro vert boo xam te ni. Mm. ku jaxle laa wax ak foo mu di toll nga woote foofu noonu. Mm. ñu déglu la ba pare orienté la dafa am benn médecin benn kilifa gu mag amoon mm. jafe-jafe. Mm. waa ji ba ma ko dégloo pendant deux heures de temps nee ma man li mu méttoon yëpp. dañ na dañ na li ma bëggoon am naa ko keroog ay nit ma woo ci suuf ba ci sama propre soxna. ndax mm-hmm. mu woo ci suuf ba sonn nangu ma ko jël. Mm. sama soxna bu ñëwee fekk may may waxtaan mais dafa tiit parce que concentration bi may am pour déglu waa ji. pour déglu te a wax man parce que xam na ne ki may déglu man koy déglu que moment boobu nag il ma déglu ko. ba am na solo euh, damay taxaw rek foofu noonu ki nga xamante très rapidement le temps que euh, temps bi xam ki nga xamante ne tey jii moom mooy soxna soosu noonu tey ban assistance nga yaakaar ni lañ ko war a mën a apporter li nga xamante ne moom mooy société bi moom mooy famille bi di ak ñëpp ñoo xamante ne rek euh, ay jege ñaalem nañ. voilà la plus grande de cette affaire. Mhm. soxna si xam ni moo jur xale yi. ëmb juróom-ñeenti weer wasin benn doom. Mhm. ëmbaat juróom-ñeenti weer. aussi ñaari doom ëmb juróom-ñeenti weer. aussi uh-huh. naat ñetteel doom. ñu ñëw informé la na lii moo xew ci ñooña uh-huh. moo tax kooku tey jii. Uh-huh. état daf koo war a gaaw a taxawu. gis nga ndume bi doomam mi fàttu woon ci safara ci Parcelles Assainies man maa xëy benn jour fexe ba xam seen kër Parcelles Assainies jël ndaw sa yóbbu ko hôpital Fann parce que jour boobu su ma jógutoon musiba ay fan après bi xale yi faatu. keroog bi mu duggee bi mu duggee seen kër. ma ne parents yi nañ ma may parce que dañ ndaw si mënul wax bi ma mayee ndaw si dama ko wax loo parents ñoo ne ma kii noo def ba mu wax mhm. ma leen loo gis fa mu yor mhm. ma jël taxi ànd ak ay mbokkam yóbbu ko hôpital fan teg ko ci loxo psychologue yi mhm. ñu assisté ko ay fan kii tey jii lu ko raw dañ ko war assisté ne bu ñu ko assisté li gën a garaaw lii sax après mën na xew moo tax euh, may ñaan euh, kilifa yi man maa ngi ministère de la santé Euh, may woo ministre Abdoulaye Diouf Sarr uh-huh. euh, pour que mbirum xel lu jëm ci wàllu xel ci boppam laa wax ci Sénégal ñu jox ko gëdd malheureusement dinañ toppatoo lépp tuberculose uh-huh. corona uh-huh. sida waaye kenn moo mës dégg ci Sénégal fii tey ñuy wax ci mbirum xel te lii nag li mu war a indi mooy gouvernement bi ci boppam en commençant par le président Macky Sall mu jël ay dispositions pour que ñun ñun fi mhm. comme conseiller li ci am ci xalaat ak ci xam-xam mhm. bu ñu ko tegoon laa wax Sénégal lu mel nii new na do do am de mais du bëri may fàttali ne atum 2020 mhm. neuf cent quinze cas de suicide moo amoon neuf cent quinze cas de suicide suicide yàgg nay am mais bii li mu garaaw mooy ki waroon na di faj moom moo faat kan la faat ay doomam di ay tout tànk ba tax na tey jii toute la société mhm. mm, dijee moo sa xol neexul mhm. te gisuma nag lu nit di wax mhm. ba sa xol neex ba nga comprendre li tax li am lenn rek lañ mën def mooy lii mu service mu service de déclic mu service de leçon pour que lu mel nii bu mu fi amati ayca am na solo loolu ñoo ko déggandoo woon na mu nekkoon tey suñu invité rek ci seen euh, émission seen cas mu wax nag lu am solo lool euh, moo ma bàyyi la rek nga tàggatoo xam naa ni temps bi xoj nañu lool ci diggante bi. Euh, li may tàggatoo rek lenn la. Mhm. gis nga mbir mi ku ko dundul mënoo ko xam. Mhm. man bi mbir mi xewee daf ma yóbbu fu sori. kenn lañ ma faatal muy Matar Jum yàlla ko yàlla yërëm ñoo bokk ndey ak baay bañ ko faatee Suède. Euh, kenn laa lañ ma ko def. te moment yooyu wax dëgg fa yàlla tolloon naa foo xam ne. Euh, yamal xiyaam moo ma gënaloon àdduna. ba tax na mbir mi fi ma toll dafa sori donc kii nga xam ne ju ëmb ak na mu mettee bés ñëw mu xaw laa gaañ toppatoo ba ñett xëy rek ci benn fan ñoom ñëpp ñu demandoo te demandoo demin bu ñaaw donc li may ñaan nit ñi kenn nag waxul ci moom wax ko lu ñaaw mais nañ ko gën a taxawu nañ ko gën a jàppale nañu xam ne jigéen la te jur ndax xar sax boo ko yaree ñu reyal la ko dalay metti surtout ñetti doom maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may xol muñ te yàlla na ko yàlla jox lu gën fàtte nag mënul ne parce que man mii trois euh, août saa bu delloo sama xel ma nekk fu sori donc ñu ngi ko koy jaxal di ko jaal sénégalais yëpp di ko jaal sunu bopp mbir la moo xam ne tiis na mbir la moo xam ne metti na te ñu ngi ñaan yàlla bu mu fi amati yàlla nañ trouver yeneen moyens yu ñu mën a rek régler problème yu mel nii te du demee nii maa ngi jaajëfal ñëpp di rafetlu bu baax a baax euh, monsieur Assoumane euh, très sincèrement euh, partage bi ñu partagé plateau bi jàngaat nañ ci leneen loo xam ne bu ñu demee. dinañ mhm. ko gën a mën a seddoo ak doomu aadama yi. Mhm. Aïcha am na solo lool moo nekkoon ki nga xamante ne moom mooy témoignage mu di jëmmoo ñuy jaajëfal rek suñu invité bi nga xamante ne moom lañ amoon ci plateau bi tey muy Ansoumana Dione ñu lay remercier ci jaar de passage bi nga defoon fi tey. am na solo. Mhm. Euh, waxtaan bi am na solo euh, seen cas. Mhm. am na cas boo xam te ni. Mhm. mën na tax ba yenn ni kaa du amati. cas moom dana am mais cas yu mel nii. xëñ na ñu jaare fii solution bi bàyyoo fii ci cas bi nii. pour yu mel nii bu bu amati ba vraiment mel di gërëm. di am nag euh, kontaan teew fii nii. di wax ne senegal yëpp a ngi métti du mi lii Sénégal yëpp la dal. Sénégal yëpp la métti ñuy ñaan yàlla. Euh, kilifa yi jël bépp matuwaay ñun en tout cas ñoo ngi fii pour teg suñu ay xalaat teg suñu ay xam-xam yàlla ñun amuñu leneen lu dul doomu aadama ñun doomu aadama moo ñuy teel bopp doomu adama moo ñuy teel bu ñuy wax feebru xel nag ki ci mbedd nag taxul bépp doomu adama mhm. buy dox ci ko suuf rek am nga droit sa xel dal parce que même problème dépense. Mhm. waa ji daf ma ne sama petit dafa daanu ñu waxtaan ma gis ne li muy leble moo bari man fa bàyyi leble. pendant deux mois. ñu def ci ci deux mois mu oo ma ne ma affaire yi baax na ma ko léegi nag fi nga teg noonu pour doo continuer. Mhm. c'est-à-dire le problème. Mhm. la solution est toujours à côté. ay ci am na solo lool solution tout le temps mu ngi ci côté li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe jafe yi société bi di jànkonteel mu nekkoon nag euh, Ansoumana Dione tey ji moom lañ dalaloon si suñu émission bu ngeen gisee plateau bi tey rek euh, ni mu xew a gësamee ngeen xam ni euh, xam ngeen ko situation bi dafa dafa doy waar dafa daf dafa daw yaram aussi de telle sorte que voilà xëy na mënuñu exprimer autant li nga xamante ne moom mooy suñu ay émission di leen jaajëfal rek di leen remercier di leen jox dig daje demee incha allah si benn beneen numéro de Sen Cas merci